mbokk yi dal leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi ñu commencé kook le regard yéenekaay mi dellusiwaat ci barça ak gi nga xamante ni réew mi laa la wax fi mu toll nii ndaw ñee ngi gën a dem laa la ci biir géej gi en tout cas ci île des bëri ñoo nga fa te bëri nag ay sénégalais lañu marine nationale bii na beneen lim goo xamante ni jàpp nañ ko luy toll ci 1500 migrants fi mu toll nii laa la wax ndaw ñee ngi gën a dem ca bitim réew démb démb rek téeméer ak fukk ak juróom ñetti doomi aadama jàpp nañ leen ci biir géej gi daal leen di retourner ndax dañ doon dem ca bitim réew jaaree ko ci barça ak barsàq gi yi vox populi di ko dëggal na marine nationale kay defati nañu jàppaat nañ beneen gaal goo xamante ni téeméeri ndaw a ci nekkoon na fukk ak juróom-ñett ci waaxuk Saint-Louis yi lañ leen jàppee et pourtant ñaari fan ci ginnaaw rek jàppoon nañu yeneen ñaari gaal yoo xam ne 242 migrants ñoo ci nekkoon déparé ci douane Louga lii di firndeel na ba jamono jii di wax ak yéen xale yaa ngi dem ci bitim réew jaarale ko ci gaal yi bu dee ci màggaluk Tuuba ak ren ji tamit yéenikaay bi mu ngi ñu xamal rek lim gi l'observateur moom taxaw seetlu ci wàllu politique yéenekaay bi ne fi toll nii ñaari pression ñoo nekk ci mbaggu président Macky mooy remaniement ministériel bi nga xamante ni moo ngi koy def ak choix de candidat wu Benno Bokk Yaakaar lii di virage boo xamante ni Macky Sall fa la toll te virage nag du ko gën dangereux en li wértéwoor mu di am na ay risque moom président Macky ci choix de candidature am bii rawatina gouvernement bi mu bëgg soppi ay spécialistes di jamonoy màggal Touba gi di wéy soin bu télécom yéenekaay bi du xamal ne moom soin bu nag mu ngay tuub di jéggalu sénégalais yi ci li nga xamante ni defoon na ko Sud Quotidien def taxaw seetlu ci suñu démocratie bi nga xamante ni ñoo ngi koy dëggatee et pourtant bu ñuy seetlu nag gannaaw ñaari alternance yi nga xam ne am nañu ko Sénégal modèle la woon ci wàllum démocratie waaye jamono ji laa la wax démocratie amatul ci réew mi Les ko joxoon la ci wetu président Macky Sall jamono ji ñuy jëm ci élection présidentielle yi nag dafa mujjee démissionné ci poste ba du mooyi Benno Bokk Yaakaar ngir mën a xàll yoonam yéenekaay bi ne Macky Sall ak Youssou Ndour de seen ànd mësul am problème moo tax waxtaan am na ci seen diggante avant Youssou Ndour mii nag di quitté Benno Bokk Yaakaar pour mën a ànd ak mouvement bi di fekkee ma ci boole jëm ci élection présidentielle yi ñu jëm source a def taxaw seetlu ci wér nam daan lekkee lekk gu faible lay lekk ndax jamono ji wér-gu-yaramam ñuy wax ak yéen Ousmane Sonko force ba mu amoon amatu ko léegi fa yéenekaay moom def taxaw ci way gi ñuy way Ousmane Sonko ci stade yi rawatina ci jamonoy match nawetaan yii yéenekaay bi diñu xamal ni autorité yi nag fi mu toll nii ñu jël ay mesures gannaaw la xewoon ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye xew ca stade Maître Abdoulaye Wade ci diwaanu Diamniadio yëf yi nag dafa mel ni dafay bëgg wër Sénégal diwaanu Vélingara nag waa ODCAV jël nañ ci ay mesures te autorités yi nag jël nañ seeni mesure bépp supporter bu fay way Ousmane Sonko dinañ la amaan lu tolloog 100000 jàpp 500000 francs CFA boo dëgëree bopp nag ñu daal lay mujjee suspendre Amadou Kandi président ONCAV di xam ne ci biir yéenekaay bi ne benn slogan politique ne commencé nañ ko seetlu ci biir réew mi mooy Sonko namm naa la waaye nag ñun suñu compétition nawetaan yi dañ ciy interdire ay slogan politique wala ay slogan religieux kon nag na supporter yi arrêté way gi ñuy way Ousmane Sonko ci stade yi menaces yi ni mel nag tax na yéenekaay bi di laajte est-ce que dina tere supporter yi ñu way Ousmane Sonko namm naa la lii nag fi mu toll nii moo jaral laajte <laughs> yàlla ba wax dajee nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah.